C'est bien, maman, c'est bien. Ouais, nous concluons. réaliser billaay mën nañ day Merci beaucoup Dieye. ñu ñëwaat ci la si importante que les autres. jamono ji ñu àddoog yéen. galactic mengidentifikasi. Jika kami pemain galactic bola Ngay dem wa galactic lan pas def pass corner national d'handball prévu à Caprine du 30 au octobre qui regroupe des équipes non Wayakar no yor bal bi. Fauché Arbitre demande de jouer.

rattraper demain en levée de rideau magu tey daara ji voilà le pays. Saalum ak Daaru Salaam fas yéene dalal nag une nga xam ne mu def la fierté de Kaffrine suba dañu ko dalal Kaffrine ba 15h waxtaan lépp lu aaju ci jafe-jafe ak wóoru Kaffrine ak li nga xam ne moom mooy moom jamono.

zero. zero. Hai, assalamualaikum. Hai, ini yep dina ya, kan rafetlu suñu participation bi comme ni ñu ASC ah, Galactique comme ni ñu ko waxee woon li ñu waxoon si début bi rek moom lañ terminé ñun ñëwuñ pour gagner kenn dañoo ñëw pour participer rafetal nawetaani mais tamit ku ñëw andi la nga xamante ne war nañaa mën a gagner dañ lay gagner am na équipe yoo xam ne tenir nañ leen fi en échec moo tax gis nga ñoom seen qualification ba léegi mi ngi en en en mi ngi mi ngi mi ngi nekk en jeu wóoragul waaw loolu da laaj am parce que booy xool tamit ñun ay waaye nga xam ay 40 ans 50 ans xam nga boo demee bay tenir rek boo yi 90 minutes ba léegi am jom la jom moo ñu fi bàyyi waaw. waaw rouge bi surtout rouge bi rouge bi cas d'indiscipline la indiscipline lañ ko mën a lañ ko mën a considéré temps gaa suñu jour la mais lim def ak d'indiscipline la waaw contre nature loolu kenn du ko kenn du ko kenn du ko kenn du ko kenn du ko ah, kii dañ koy balaame bokkul ci football anti jeu la andi. ñu jox ko rouge rouge ba nga xam ne amul leneen lu si ñun di wax rouge bu valable rouge direct la woon sax mais ak arbitre bi xam nga ak ni mu si na bi ak arbitre doon ay bénévole lañ moo tax mu demee noonu de midi waaw coupe du maire dina wute nag ak match bi parce que coupe du maire ñun ak équipe bii doon ñu boobu moom day doon match ba nga xam ne dañ ko jëlaat ci beneen façon ci beneen beneen beneen beneen dimension dana doon la nga xam ne daal maa woo course bi ak euh, capitaine Diaw ne leen ñu préparé match boobu moom mooy doon match ba nga xamante du yomb si ñoom foofu lañ koy fayoo daal incha allah. Euh, maa ngi tudd Souleymane daal ñu gën a ma xamee si Diaw je suis le capitaine de l'ASC Yaakaar. waaw ah, waaw effectivement c'est normal parce que Galactique bi ñu wax rek euh, dañ ko dóor 5 à mais dañoo teg si lu tax ñu dóor ko 5 à 0 mooy que ne dañoo teg si équipe bi nga xam ne moom lañ yaakaar buñ doon joué ak euh, étoile buñ doon joué ak Jokko même raay moo tax xeebuñ ko dañoo jël match bi teg ko fi nga xamante ni comme buñ doon joué les grandes équipes moo waral tey ñu escoré ko te xam Galactique match yi yëpp dugal mais tey on a on a contenir Galactique pour du dugal suñu candidat moo waral ñu dóor ko 5 à 0. waaw pour l'instant moom dañuy xaar parce que euh, dafay am meilleur troisième euh, mooy que ne suñu match bi nga xam ne moom lañ perte mooy contre Rail bi moo ñu porté préjudice euh, jusqu'à présent on a 5 points ñu xaar yeneen pool yu jeex ba xam dinañ mën a bokk ci meilleur troisième. coupe du maire waaw effectivement parce que coupe du maire moom comme ni ñu ko waxee rek c'est le même tactique bii lañ am coupe du maire instant bii moom ñu ngi koy préparé di préparé comme bu yàlla defee tamit ñu génn dem quart de finale. loolu tamit lépp ku xam ASC Yaakaar nga xam ne ñun moom entraînement dañ koy teg si yoon à chaque fois euh, dañuy respecté euh, entraînement yi di préparer suñu match yi xam ne à à